mu mel ni ñun dañoo daanu ba ne janjan ci suuf fi mu nekk nii kenn mënuñu wax ni li xew ci assemblée national dafa wékku ci ay loi de la république daanaka bëgg-bëggu ñenn la ñoo xam ne dañu bëgg a ci ngor ak Sénégal ne duñu ko bàyyi moo tax pexe bu ñu jot bu ne moom la ñuy jëfandikoo ngir mën a des ci nguur kii ci ay artifice juridique nañu xamee ni mandat bi nga xam ne ca njëlbeen ga juróom-ñaari at la mënuñu ko laal ngir wàññi ko def ko juróomi at ndax loolu moo nekkoon sàkkute fu Macky Sall ci at yu jëkk yi. constitution bu Sénégal daal di ko koy aaya waaye tey li ñu gis moo gën a doy waax mooy ni mandat président de la république yokk dañ ci juróom-ñetti weer ñu war a amal ay élection fii ci réewum Sénégal ci fukki fan ak juróom ci weeru décembre bi ñu dëkkmal bu dee ne second tour am na njiitu bu Sénégal dafay desaat ci bopp nguur gi ba ci atum 2025 li ci nar a dàq nag mooy ne contentieux électoral bu ci amee daanaka mandat bi day gën a yàgg mandat bi nga xam ne nag kenn mënu ko woon wàññi ci njëlbeen ga fi mu nekk nii nag mën nañu foofu nag la réewum Sénégal daal di toll tey ci tey jëf ji nga xam ne nag Macky Sall def na ko daanaka moo gën a yées jëf ji nga xam ne candidat bi def na ko ci wàllum parjure fi mu nekk nii dañu rey constitution bu Sénégal ba mu yàqu yaxeet leen ko may nag mooy ne dañoo sukkandiku ci force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoo nekkoon ba ci assemblée nationale mel ni bouclier dox ci diggante député yi ak askan wi nga xam ne dañu leen wàccu ñu bëggoon nag faj seen mer jaarale ko ci mbañ yi. suufu Sénégal bi nga xam ne dañ ko mës a bàkk ci wàllum démocratie fi la jëf ju ñaaw ju salte jile daal di amee ay junniy junni sénégalais ñu tënk leen dagg internet bi ab télévision privée ñu daal di jëlaat licence bi nga xam ne joxoon nañu ko ko. moo ne de télé boobee li mu def mooy rek wane ay scène de manifestation yi nga xam ne am na ci réewum Sénégal yooyu la scène de manifestation sax am na ay télévision yu nekk ca biti réew yoo xam ne li ñu ko jàllale moo ëpp fuuf li ko télé boobu jàllalee. sunu démocratie bi nga xam ne moom lañ doon tagg tey dañ ko nappaaje nappaaje ko itam ci plateau télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ca bitim réew njiitu réew bi nga xam ne askanu Sénégal dañu ko woolu woon dénk ko réew mi tey dafa mel ni dafa tayle askanu Sénégal moo ne de biñ koy door a fal dafa ne woon kat dafay def gestion bu sobre et vertueuse waaye li ñu gis tey doy na waar fi ci réewum Sénégal ñu ñaan rek ni li mu def du mujjee ci poubelle histoire bu Sénégal député yi takk der yi dañ leen pamti pamte génne leen ci assemblée nationale jamono boobee ñu bàyyi seen nattango yi nga xam ne ñoo ànd ak nguur gi ñu yëkki seeni loxo ngir rek wote boobule loi. di impunité boo xam ne daanaka tey ci la ñu tënk li mooy jàngatu kàccoor bi génn ci yéenekaay bi di Le Témoin AGT News. Démocratie avachie. Jamais assurément notre pays n'avait atteint un tel niveau de délabrement. Jamais le débat politique ne s'était également trouvé si cannibalisé et les actes si abjects. Avec ce qui se passe depuis samedi qui constitue une première et qui pourrait ouvrir la porte à toutes les incertitudes, on peut dire que nous sommes tombés bien bas. Personne ne pourra venir nous dire que ce qui a été fait repose sur les lois de la démocratie. Cela procède plutôt de la volonté de gens jamais repus qui veulent continuer à se maintenir au pouvoir par tous les moyens possibles et imaginables. Par des artifices juridiques notamment, on apprend ainsi que le mandat de sept ans que l'on pouvait euh, toucher pour le ramener à cinq ans du fait de la Constitution peut désormais être prolongé au de peu. de huit mois seulement. Et si le 15 décembre, il y a un second tour, le chef pourra rester tranquille jusqu'en début 2025, et plus si trouble contentieux électoral ou crise institutionnelle. Ainsi donc, il est impossible de diminuer un mandat, mais permis de le prolonger de quelques mois. C'est là où réside la belle et flagrante duplicité de celui à qui on pourrait enlever toute confiance car ayant fait pire que la pauvre candidate accusée de parjure pour faire passer leur loi scélérate et tuer dans l'œuf toute contestation, ils se sont appuyés sur les forces de défense et de sécurité qui leur servent de bouclier face à un peuple qui les a vomis et qui était prêt à en finir avec eux par la voie des urnes. Dans cette ère de la démocratie avachie, que l'on se réveille pour voir l'outil de travail de millions de Sénégalais, Internet restreint, et on leur retire la licence d'une télévision appartenant à un groupe qui emploie 200 personnes, le crime de cette télé, diffuser des scènes de manifestations que d'autres chaînes de télévision étrangères retransmettait en boucle. Notre belle démocratie chahutée sur des plateaux de télévision locales et étrangères. L'homme candide à qui on avait fait confiance et qui nous avait vendu le rêve d'une république réconciliée avec elle-même et à la gestion sobre et vertueuse nous a véritablement eu. Souhaitons qu'il ne se retrouve pas dans les poubelles de l'histoire. Voir des députés évacués manu militari afin que d'autres, leurs collègues, puissent faire le sale boulot en toute impunité. Voilà où nous en sommes réduits. Telle est la rubrique de Kachorbe parue dans le quotidien Le Témoin. AGT News.